Casamance Casamance son excellence le président Macky Sall daf fi def lu rëy. daf fi def lu rëy. tey li mu def Casamance amul kenn koo xamante ne responsable politique noonu. dëgg li président Macky Sall def fii nii amul kenn ku ko def. dëgg la dëgg la tuuti ko def. c'est vrai dëgg la dëgg la. Ah, Ousmane Sonko amuñu ko tabax dëgg la dëgg la. Sonko lan la fi def dëgg la. Sonko nanu débral pas. Sonko daf ñu yàgg nax. dëgg la dafay nax jigéen ñi. waaw fii si buntu kër la fii si buntu kër waay. waaw waaw nous sommes toujours avec son excellence. Nous resterons avec le leader Doudou Ka qui fait du social. un futur maire département de on à on est ce a ici Il fait Il fait ici. fait social Nous Nous croyons son Nous croyons

Macky Sall oui vive le président Macky Sall mooy borom réew mi jusqu'à 2035